Rahim, tawakkaltu Allah. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers collaborateurs du ministre, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci ak santam. Monsieur le Président digital jiital ci sama cadeau, ay kaddu yu njaal ak ay kaddu yo xam ne Pikine gama bayiko, ko ndax wolof ne kër buki lu mu lëndëm lëndëm fa la kon man Pikine. moom lay damoo moom lay tiitoroo moo ma dàqal almadi moo ma dàqal fu ne tey lu mel nii bu fa amee doon fitna ju ci àddina ñu am fa ay neuf morts ñoom ñëpp nekk ay gone ma war a jaale seeni waajur rawatina ak jigéen ñi di fàttali ni coow bu amee fu fitna amee rek jigéen moo ciy gën a victimisé wu loolu dafa firnde wu ni ci magasin yi ñu toj sax bu dee fukk juróom-ñett yëpp jigéen ñee ko moom kon maa ngi leen di massaw di leen di leen di wax ne fitna yàlla rëbb na ku ko yee kon yàlla nañu yàlla musal ci fitna monsieur le ministre ma wax ci département de Pikine en tant que au maire de la ville de Pikine dëkk Pikine Ouest bi nga xam ne fa la technopole nekk mu am en 2019 le président Macky Sall defoon benn décret boo xam ne daf ko defoon décret 2019 boobu nga xam ne dafa am direction des aires maritimes communautaires protégées loolu defe naa ni xëy na directeur baa ngi fi toog

loolu foofu rek la am ci zone boobu te ñooñu am nañu ay jafe-jafe ndax ku ne xam ne ni 650 hectares oto bu baax bu ko dawal bu dawal euh, zone boobu jafe na leen kon monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan foofu nga jël ci ay dispositions yoo xam ne mesure d'accompagnement lay doon. monsieur le ministre site boobu nag dafa nekk site boo xam ne Pikine moomu ko c'est régional parce que huit communes ñoo ko bokk ñeent yu Ndakaaru ak ñeent yu Pikine bi ñu bokkee loolu nag dañoo war a nekk loo xam ne moyen daf ko war a génn. ñu def ko noo xam ne dañ koy sécuriser defar ko doo xam ne xale yi suñuy doom yi ëllëg mbedd mi ñuy taxawaalu léeg-léeg wala ñuy football wala ñuy dem ci géej gi ñu fay ñëw bu ñu ko defaree ba mu baax day mel ne Bandia wala mu mel ne Parc Hann ñu fay dugg di ko tëj di ko def sax privé donte benn 200 francs lañ fay laaj xale yi ñëw di xool ndax ku ne xam na ni oiseau yu mel noonu dafay raar te xale yi dañ ko war a xam monsieur le ministre leneen li nga xam ne moom laay wax di la wax rek di la ko ñaan mooy accompagnement boobu nga xam ne zone technopole boobu bëgg nañ ko nga jàppale leen ci bu baax a baax a baax a baax parce que dinañu jàppale ñun ñëpp te dina doon loo xam ne poumon vert de la région de dakaar lay doon te defe naa ne ñun ñëpp ñoo ko war a jariñoo li nga xam ne tam moom lay daaneelee monsieur le président de l' assemblée nationale dafa am léegi sama collègue maam ngay Diop bu ko wax xam nga dafa am ñoo xam ne li ñu def dafa bari ci lu baax boo ko bëggee wax da doon wax kat te man dama bëggutu doon wax kat moo tax ma jël pattam googu mu am mu jaay ma ci patt googu ma ne patt booleeg nag di liggéey te bu ma ci boole wax muy son excellence président Macky Sall moom mi nga xam ne tey yàlla dafa àtte ni yaa ko wax léegi yàlla mooy joxe nguur nguur googu mu koy joxe nag moo koy xam nu mu koy jële parce que fii nag dara saxu fi moo tax loo fii def rek na rafet addina dañoo war a rafetal moo tax képp kuy yee fitna da nga ko xamul ku xam fitna doo yee fitna ñuy ñaanaat di delloo si xel yi di wax ne jaboot yi nañu téye seen jaboot gi ndax doo dégg mukk doomu ministre bu dee doo dégg doomu député bu dee moo xam opposition la moo xam pouvoir kon yaay ya nga xam ne ñooy jaay gerte caaf ci Pikine nekk marché zinc baa ñu jaay fëgg jaay rikk dama leen di conseiller nañ téye seen doom ndax doom mooy alal te ëllëg ku la ku la gën a sàmm sa doom yar la sa doom moo la ëpp alal kon yàlla nañu yàlla jàppale président Macky Sall yàlla may ko ndam defal ko lu xawe njortam barki Seexu naal Xaddim jërëjëf